commencé di nuyu euh, participants yi ci biir ñoom yëpp ñu fi teewee ci ndaje mi jiital ci préfet yi sous préfet yi ak euh, coordinateur Procasef les services techniques maires yi ak euh, société civile journalistes yi ak ñëpp ci teewaay si tey ci fii ci Diourbel fii ci gouvernance di waxtaane mbir lu ñu yore suuf suuf nag li ci dekk wax mooy ñu ko bokk dañoo bëri wax nañ ko léegi comme ñi ko bokk dañoo bëri dañ ko war a toujours di ko toog di moo tax ñu dajee fi tey ñu ñëpp pour waxtaane maintenant lan la ni mën a yore suuf ci biir dëkk yi ndax gis nañ fi yu bëri ay jafe-jafe day am lu xam ne suuf moo ko indi moom jarul sax moom foo xool si sa kanam rek da nga gis ci dëkk yi am na ay jafe-jafe yu am ci diggante nit ñi te problème suuf moom moo koy indi kon nag bu programme sax ñëwee tey fii Diourbel ñëw tànn ci ay commune yu xam ne ñii ci département Bambey euh, ñu woo ñëpp ñu toog ñu toog ñu pencoo ñu waxtaan xool naka la mën a def ba mën a ba xam ne daal léegi ñu bokk suuf ñoo ñoo ñoo bokk. naka la ko mën a gérer ba jafe-jafe ba loolu moo tax tey ñu toog fii waxtaan te yaakaar naa projet bi bu demee ba ci kanam mu ne cinq lay am fii euh, cinq la war am juróomi at bu demee ba nga xam ne bi gis na xam ne ñu kat projet bi lu am solo ci biir solo suñu dëkk yi ndax dana tax lépp lu fi def jël ci suuf moo xam ne lii lu dëggu la te lu wóor la loolu moo ci am solo. def ay délibération yu wóor délibération xam ne suñ ko sukkandikoo dina wóor dina leer benn jafe-jafe benn du du ko du ko nag vraiment moo tax di sant Procasef di ñëw sant élu sant les sous-préfets et sant ñàkk di wane nag xeer bi ñu ñëpp ñoo moom mbir mi du mbiru Procasef mais mbir ñëpp la kenn ku ne fi nga nekk boo ci dugalee sa sa loxo rek yaakaar naa lu ñu bëgg nga mooy jàmm am ci mbiru suuf. nuyu bu baax te jii ñu ngi fii ci Diourbel ci wetu gouverneur de la région de Diourbel dañu fee ñëwoon pour présenter leen projet bi ñuy wax cadastre et sécurisation foncière euh, muy projet bu am solo boo xam ne dañ ko yëkkati jëmale ko ci communes yi pour ñu xool nañ leen leen di jàppalee. ba ni ñuy yore suuf ñu gën koo améliorer looloo tax nag bu ñu waxee mbiru suuf lu ñuy waxtaane la service technique yi gouverneur convoqué na leen invité na société civile invité na acteurs yëpp ci suba ba léegi présenté nañ leen projet bi waxtaan nañ jël nañ seeni xalaat xalaat yu am solo yoo xam ni dinañu gën a xam ñun fan la ñuy teg sa sunu tànk pour réussir mbir mi Euh, communes yi dinañ leen dooleel bu baax a baax yi nekk fii ci région de Diourbel yi nga xam ne choisir nañ leen dinañ leen tabaxal lu ñuy wax bureau foncier ci wàllu xarale yu bees yi dinañ leen wax indil li ñuy wax système d'information foncière dinañ leen jàppale ci formation déjà agent foncier bi nga xam ne commune bi recruté na ko fii may wax ak yow nii ñu ngi leen di former fële ci Dakar dinañ former commission domaniale bi mairie ci seen bopp dinañ leen former administration territoriale également leen jàppale ci formation bi ba nga xam ni acteurs yëpp ñoom ñooy jógandoo songandoo projet bi du waa Procosef kese dañ koy liggéey ak acteur yëpp parce que loolu mooy objectifu état bi état du Sénégal pour un peu mën a jàppale bu baax a baax communes yi ci yorinu suuf si. waaw commune bi incha allah ñu ngi ko war a def ci téeméeri commune ak fanweer ak juróom-benn bi ñu koy choisir nag ñu leen tànn. dañ cee ànd ak association nationale des maire du Sénégal ànd ci ak ministère des collectivités territoriales ak yeneen service technique yépp bi ñu koy tànn comme que tànn dafa metti nag dañoo wut ay règle dañu nañu fexe ba fukki région ak ñeent yi xam ñoo am Sénégal yépp bokk ci ñu toll nii gox boo dem ci Sénégal am na commune yu bokk ci projet moo xam Casamance la moo xam côté Bundu la muy Tamba ak Kédougou côté Ndar côté Matam biir bassin arachidier bi zone des Niayes foo ci dem am na commune yoo xam ni bokk nañ ci projet bi te incha allah bu ñu yàlla defalee ndam ci liggéey bi ñàkkul ni état dina jël ni kat dina matale commune yëpp ba commune yëpp am infrastructure yi nga xam ni moom lañ bëgg ñu am ko muy bureau foncier yi muy améliorer procédures yi muy am système d'information foncière. nan ngeen fas yéene liggéey ak waaw projet bi en premier lieu cadastre da cee am doole trop parce que aujourd'hui am na lu ñuy wax NICAD muy nouvelle identifiant cadastral loolu il faut waa cadastre ñoom ñoo koy joxe looloo tax sunu représentant projet bi yi nga xam ni ñoom sax ci biir service cadastre la ñuy nekk. ci centre des service fiscaux foofu la ñu ne di liggéey ak bu baax a baax service technique yëpp moo xam karas la moo xam domaine la moo xam aussi yeneen service yeneen service yëpp donc ñëpp ñooy lëkkaloo ànd ci liggéey bi. xanaa nga présenté woo. waaw man la Mouhamadou Moustapha Dia donc di coordonnateur bu projet cadastre ak sécurisation foncière Procasef. waaw ci njeexatalu projet bi résultat yi ciy xaar bëri na parce que dina tax ba léegi ñu am déli comme ni ko gouverneur waxee ñu am ay délibération sécurisée boo xam ne délibération bu maire defati ci goxam kat dañ koy day nekk délibération boo xam délibération bu wóor la donc ci wàllu comme projet nag day am ay objectif ay indicateur ñun ciblé nañ lu mat cent cinquante mille ménages ak un million de personnes yoo xam ni bëgg nañ leen a atteindre te loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax te incha allah projet bi également dina tax ba coowal suuf ci zone yooyu wàññeeku bu bëri ndax outil yi ñuy teg day uti yoo xamante ni bii day day tax ba ni ñuy joxe suuf ñu koy joxe ci yoon yu wóor a wóor wóor.